ملكتني مكنتني أغنيتني صححتني أصلحتني هديتني برأتني أبقيتني كلمتني أوحيت لي عصمتني علمتني سرين جمواهنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين wax ne alhamdulilahi rabbil alamin kàddu yi day ay cant rek lay doon sëriñ bi mu wax ne kàddu yi ay cant rek lay doon li ci jiitu nag moo di eh, nga xam ne eh, ñëw nañu sëriñ bi tax leen li ci jiitu nag mooy waa kër Cheikh Mouhamadul Fadil nga xam ne ñëw nañu sëriñ bi rekk tax leen a jóg ngir xam ne eh, liggéeyub sëriñ bi rekk la ngir xam ne liggéeyub sëriñ bi rekk la te ñëw ci jiitu kenn jiituwu leen ca te ñëw ci jiitu kenn jiituwu leen ca kon seen jéego yi nga xam ne jógee nañu ko Touba kon seen jéego yi nga xam ne jógee nañu ko Touba ba ci seen jataay seen jataay bu rafet bii. ba ci seen jataay bu rafet bii. lépp ak cant la gu rëy. Eh, lépp ak cant la gu rëy. goo xam ne ñoo ko jëfal seen bopp. goo xam ne ñoo ko jëfal seen bopp. mën a lu cant gu rëy googu ñu jëmee leen jëme jëme ko ci ñoom. kon du man lu dul cant gu rëy googu mu jëme ko ci ñoom lu jiitu ban leen sante sunu lu jiitu mi ngi leen di sante sunu leen sante ban leen sante sunu borom sante leen sëriñ bi sante leen sëriñ bi sante kilifa yu baax yooyee sante leen kilifa yu baax yooyee ñoonu faggul pastéef bu rëy nga xam ne ñoonu faggul pastéef bu rëy jëme ko ci yitte ju rëy jëme ko ci yitte ju rëy ak liggéey bu rëy ak liggéey bu rëy loolu moo indi liggéey bii kon lépp suñ lépp ak cant kon suñ lépp ak cant la di leen seere tam di leen seere litam seen njaboot gii eh, Cheikh Mouhamadul Fadil jiite liggéey bi di leen seereel Cheikh Mouhamadul Fadil mi jiite liggéey bii ak ñi ko àndal ak ko àndal war ci liggéey bi lépp. li war ci liggéey bi lépp. waajal nañ ko ko. waajal nañ ko ko. tàmbale ko ko. tàmbale ko ko. ba ci jataay bii. ba ci jataay bii. mu àgg tey jii. mu àgg tey jii. ki tàmbali woon liggéey bi na mu ko daa na mu ko daa defee. ka tàmbali woon liggéey bi na mu ko daan defe di ko ni tàmbalee di ko ni tàmbalee di ko ni àggalee di ko ni àggalee taxaw na moom moom Cheikh Mouhamadou Fadal taxaw na ànd koog njaboot gii mu ko àndal ànd koog njaboot gii mu ko àndal liggéey ko liggéeyin wu rafet liggéey ko liggéeyin wu rafet xam ne ji yéene ju mat sëkk moo ci jiitu xam ne yéene ju sëkk moo ci jiitu pasté bu mat sëkk. ak pasté bu mat sëkk. ak yitte ju mat sëkk. ak yitte ju mat sëkk. liggéey bi moo laaj loolu. liggéey bi moo laaj loolu. kon liggéey bi rek nag moo ci am solo. kon liggéey bi rek nag moo ci am solo. jataay bu waa kër Cheikh Mouhamadou Fadel ñii. jataay bu waa kër Cheikh Mouhamadou Fadel ñii. matal na lépp. matal na lépp. rafetal na lépp. rafetal na lépp. àggale na lépp. na lépp. na ko kilifa yu baax ya sose woon. na ko kilifa yu baax ya sose woon. nekke woon ko ca. nekke woon ko ca. kon seen jéego yi ñu jógee Touba. kon seen jéego yi ñu jógee seen jataay bii. ak seen jataay bii. mottali na liggéey bi. mottali na liggéey bi. ndax eh, yëg gi nga xam ne. ndax yëg gi nga xam ne. liggéey bii liggéey bii liggéey boroom liggéey bi rekk la liggéeyu boroom liggéey bi rekk la ñu am yëg gi ñu am ñu am yëg gi ñu am ba jóg ba jóg seen lépp di yittey sëriñ bi seen lépp di yittey sëriñ bi xam ne ñoo moom liggéey bi xam ne ñoo moom liggéey bi ñi fi nekk ñoom lañ fi nekkal ñi fi nekk ñoom lañ fi nekkal nekkal leen ci nekkal leen ci kon nañu xam ne seral nañ suñu xol guy kon nañu xam ne seral nañu suñu xol guy dalal nañu suñu xel reteex dalal nañu suñu xel reteex dolli nañu it sunu yaakaar ci liggéey bi. dolli nañu it sunu yaakaar ci liggéey bi. xam gi xam ne seenub liggéeyee. xam gi ñu xam ne seenub liggéeyee. ñëw gàttanduñu ci. ñëw gàttanduñu ci. ànd ko gën koo ànd ak nun gën koo ànd ak nun xam ne noo ko bokk. xam ne noo ko bokk. te ñoo ci jiitu. te ñoo ci jiitu. nekk fi. nekk fi. nekkal leen fi. nekkal leen fi. loolu. noo ngi sant bu baax a baax. loolu noo ngi ciy sant bu baax a baax. ndax ni ko ki tàmbali woon liggéey bi. ndax ni ko ki tàmbali woon liggéey bi. dugal ko ci liggéey bu rëy bi bi fi borom bàyyi. ci liggéey bu bi fi borom bàyyi. yaakaar naa ne gannaawam. yaakaar naa ne gannaawam. dara naqariwu ko ci. dara naqariwu ko ci. ndax ni mu ko bëggee woon. ndax ni mu ko bëggee woon. bàyyee ko fi. bàyyee ko fi. noonu xame nan na mu ko bëggee woon. noonu na mu ko bëggee woon. ñu fab jël suñu yitte jëpp. ñu jël suñu yitte jëpp. xam ne liggéey bi rek moo fi nekk. xam ne liggéey bi rek moo fi nekk. te dara ji lii dara jiitu ko ci liggéey bi. te li dara jiitu ko ci liggéey bi. kon noo gën a seeral waa kër Cheikh Mouhamadul Fadel ñii. kon noo ngi gën a seereel waa kër Cheikh Mouhamadul Fadel ñii. nga xam ne seen jéego yi jóg. xam jéego yi ñu jóg. ci seen jataay bii. ba bii. ni liggéey bi toll rekk la. xam ni liggéey bi tollu rekk la. ñu xam ne ñi yor liggéey bi. ñu xam ne ñi yor liggéey bi. dañu leen fee nekkal rek. dañu leen fee nekkal rek. waaye lu ñu ciy sàkku. waaye lu ñu ciy sàkku. ñoom lañ ciy jiital. ñoom lañ ciy jiital. nag ndokk bi nga xamee ne. kon nag ndokk bi nga xamee ne. xam nañ ne seenub liggéey. xam nañ ne seenub liggéey. ba ñëw téyel ko seen bopp. ba ñëw téyel ko seen bopp. mu ànd ko gën koo ànd ak ñoom. gën koo ànd ak ñoom. kon eh, noo ngi gën sant bu baax. kon noo ngi gën a sant bu baax. lan ban gannaaw ban leen leen nag ñii mu Cheikh Mouhamadou Fadel mii taxawu liggéey bi ginnaaw leen seeree leen nag ne Cheikh Mouhamadou Fadel mii taxawu liggéey bi defe nañ ko nam ware defe nañu ko nam ware noo ngi leen di ñaan rek noo ngi leen di ñaan rek ngeen ñaanal leen ngeen ñaanal leen suñu borom dolli leen kattan suñu borom dolli leen kattan yokk seen fan yokk seen fan dolli seen wér. dolli seen wér. ba ñu gën a mën a nekk ci liggéey bi. ba ñu gën a mën a nekk ci liggéey bi. gën leen ci mën a nekkal. gën leen cee mën a nekkal. gën leen cee mën a jéem jéem a àggale seen yéene. gën mën a gën a jéem a àggale seen yéene. ñu ngi ñaanal loolu baax a baax. ñu leen ñaanal loolu bu baax baax. ñu ngi leen di seeral ne sant leen bu baax. ñu ngi leen di seeral ne sant na leen bu baax sant na Cheikh Mamadou Faral ak ñi man loolu liggéey bu baax. liggéey bi. ndax liggéey bi. moo jiitu ci liggéey bi. moo jiitu ci liggéey bi. loolu ku ne xam ne sëriñ bi. loolu ku ne xam na sëriñ bi. liggéeyam rëy na lool. liggéeyam rëy na lool. te yaatu lool. te yaatu lool. waaye alhamdulilah njabootam gi ñëpp. waaye alhamdulilahi njabootam bi ñëpp. yëg nañ. yëg nañ. xasaayitam yii. xasaayitam yii. fa mu ko féete. fa mu ko féete. ba kon. ba kon. ñëpp yëg nañu. ñëpp yëg nañu. fi nu xasaayit yi féete. fi nu xasaayit yi féete. alhamdulilahi rabbil alamin. alhamdulilahi rabbil alamin. njaboot gi mel na ne ñëpp xam na yëg nañ ko. njaboot gi mel na ne ñëpp yëg nañ ko xam nañ ko. liggéey bi ñu liggéey fii. liggéey bi ñu liggéey fii. mel na ne xoli taalibe yëpp. mel na ne xoli taalibe yëpp. ci la ñuy xëy di ci gont. ci la ñuy xëy di ci gont. kon nu sant bu baax a baax. kon nu sant bu baax a baax. xam ne sëriñ bi fàggu na lépp. xam ne sëriñ bi fàggu na lépp. ci. nun nag dara waruñu lu dul sante ko sunu lépp. lu lépp. lu nu mën sunu kem kàttan. lu nu mën sunu kem kàttan. téyeel ko liggéeyam bii nu téyeel ko liggéeyam bii taxaw ci temm taxaw ci temm di ci def lu nu mën ak lu nu mënut xel mën naa dal bu baax a baax xel mën naa dal bu baax a baax ndax li ci am solo ndax li ci am solo jiitu ci liggéey bi. jiitu ci liggéey bi. mooy sëriñ bi rek nekk ci nun mooy sëriñ bi rek nekk ci nun ñii li ma leen di seeral rek ci ay jamono. ñii li ma di seeral ci ay jamono. mooy ñi ñuy tudd bi. mooy ni ni tudd di tudd sëriñ bi. ma leen di wax ne sëriñ bi rek nekk ci ñoom. nee day wax ne sëriñ bi rek nekk ci ñoom. loolu nag. doy nag doy doy loolu nag doy na ak defaru. ci biir ak biir ak tey ak ëllëg. tey ak ëllëg. waaw ah, muy gën a ñaan rek. muy gën a ñaan rek. suñu borom sàmm leen. suñu borom sàmm leen. te bàyyi leen fi lu yàgg. te bàyyi leen fi lu yàgg. li li nekk seen seen xol yi. ba li nekk ci seen xol yi. muy pëstéef bi ak yéene ji ak yitte ji. muy pëstéef bi ak yéene ji ak yitte yi. ñu gën koo mën a jëfe ñu gën koo mën a jëfe lépp itam. lépp itam. gën koo mën a sant sëriñ bi rek. gën koo mën a sant sëriñ bi rek. moom moom rek lan am. moom rek lan am. moom rek lan war a xool. moom rek lan war a xool. def ci sunu kem kattan. def ci sunu kem kattan. moom desu ko desu ko seen. moom sëriñ bi desu ko seen. ndax ci boromam rek la nekkoon. ndax ci boromam rekk la nekkoon. yonent bi mu ko sangu bi mu ko joxoon bi mu ko joxoon ndigal. ni ko yonent bi mu ko joxoon ndigal. ci diggante boobu rek la nekkoon. ci diggante boobu rek la nekkoon. kon nu lu ñàkk ñàkk solo. kon nun itam ñàkk ñàkk solo. nekkoon na mu nekkoon di jaamu di liggéeyal di liggéeyal yonent bi. te sax te sax ca kon mën noo ñàkk doon ay jaam. kon mën noo ñàkk doon ay waaye nag sañ nañ koo liggéeyal. waaye nag sañ nañ koo liggéeyal. nekk ci diggante boobu. nekk ci diggante boobu. di di jaamu sunu borom. di jaamu sunu boroom di ko liggéeyal. di liggéeyal sëriñ bi. duñ ko jege nam doon liggéeyal yonent bi. duñ ko mën a jege nam doon liggéeyal yonent bi. waaye nu def nu liggéeyal ko sunu kem kàttan rek. waaye nu liggéeyal ko sunu kem kàttan rek. ca lam bëggoon. ca lam bëggoon. fàggul nañu lépp. fàggul nañu lépp. waaye nit mënta toog loxoy neen. waaye nit mënta toog loxoy neen. faw ñu jóg faw jóg taxaw taxawaay bu dëgër taxaw taxawaay bu dëgër fas yéene ko yeenul liggéeyam bii fas ko yéene yanul liggéeyam bii la cay sunu kem kàttan la cay sunu kem kàttan loolu moo waral pàggutee bu rëy bii kilifa yi fàggul nu ko loolu moo waral pàggutee bu rëy bii kilifa yi fàggul nu ko seen lépp ñu jëmewoon ko bi seen lépp ñu jëmewoon ko ci sëriñ bi moo moom rek lañ nu nekkal leen nekk nekkal leen ci. nekkal leen ci. nañ ci war a nekkale sëriñ bi. na mu ci nañ ci war a nekkale sëriñ bi. loolu rek lañ bëggoon ci noonu. loolu rek lañ bëggoon ci noonu. kon alhamdulilah rabbil alamin. kon alhamdulilah rabbil alamin. ndokk bi nga xamee ne. ndokk bi nga xamee ne. sëriñ bi rek moo moo moo ne ci ñoom. sëriñ bi rek moo nekk ci ñoom kilifa yu baax yi. kon ñaan rek moo ci des. kon ñaan rek moo ci des. suñu borom gën leen sàmm rek. suñu borom gën leen a sàmm rek. te bàyyi leen fi lu yàgg. te bàyyi leen fi lu yàgg. kàttanal leen bu baax a baax. kàttanal leen bu baax a baax. li bëgg ci liggéeyal sëriñ bi. li ñu bëgg ci liggéeyal sëriñ gàttandu leen. suñu borom gàttandu leen. ak tawféexi sëriñ bi. ak tawféexi sëriñ bi. borom liggéey bi muy sëriñ bi. boroom liggéey bi muy sëriñ bi. gàttandu ak ngërëmam. gàttandu ak ngërëmam. loolu rek mooy ñaan bi loolu rek mooy ñaan bi. suñu xel dal na bu baax a baax. Eh, suñu xel dal na bu baax a baax. dañ ciy dañ ciy nekk rek. Eh, dañ ci nekk rek. tey ñaan dollan rek tey ñaan dollan rek. kon nag ñoo ngi sant bu baax a baax. kon nag ñoo ngi sant bu baax a baax. ni ma ko waxee woon ci njàlbeen gi. ni ko waxee woon ci njàlbeen gi. ñoo ngi leen di seeraloo Cheikh Mamadou ak ñi mu àndal yor liggéey bi. ñu ngi leen di seereel ci Cheikh Mamadou mii ak ñi mu àndaloon ñu yor liggéey bi. nañ leen ñaanal. nañ leen ñaanal. seeral seeral seeral seeral suñu cant ak ñoom. nee na mi ngi leen seeral ak cantam ak ñoom. gannaaw bu ñu leen sant ñoom. gannaaw bu ñu leen santee ñoom. ñu sant ñu ngi ko bokkal ñëpp. ñu ngi sant ñi ngi ko bokkal ñëpp. ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo am tawféexal ne ci ba ne ci barab bi. ndax ñi nga xam ne ñoo am tawféex ne ci barab bi. bu liggéey bi jotee. bu liggéey bi jotee. seen yitte yëpp dañ koy bàyyi. seen yitte yëpp dañ koy bàyyi. ñëw toog fii. ñëw toog fii. teewlu teewlu. di rek njàng di déglu rek njàng mi. ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax baax. ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax. jamono dem na ba itam. jamono dem na ba itam. daj na àdduna bépp. daj na àdduna bépp. bu waxtu jotee. bu waxtu yu jotee. dégg naa ñi ci bitim réew. dégg naa ñi ci bitim réew. dañ koy waajal nii nu ko waajale dañ koy waajal nii nu ko waajale fii. di ko dégloo nii nu koy. di ko dégloo nii nu koy dégloo fii. kon ñoo ngi sant ñi nga xam ne am nañ tawféex di teewlu fii. kon ñi ngi sant ñi nga xam ne am nañ tawféex yi di teewlu fii. leen di sant ci seen yitte bu baax a baax. ngi leen di sant ci seen yitte bu baax. di sant ñi nga xam ne itam. sant ñi nga xam ne yitam am nañ tawféex yi. am nañ tawféex yi. seen yitte yëpp di sëriñ bi. seen yitte yëpp di sëriñ bi. xam xam xam liggéey bi. xam liggéey bi. bu waxtu wi jotee. bu waxtu wi jotee. fu ñu mën a nekk. fu ñu mën a nekk. ci bitim réew. ci bitim réew. ñu bàyyi seen lépp. ñu bàyyi seen lépp. di teewlu. di teewlu. di déglu. di déglu. ñooñu ñu ngi leen di sant cant gu rëy. ñooñu ñu ngi leen di sant cant gu rëy. kon ñu ngi sant ñëpp. kon ñu ngi sant ñëpp. ñi ko bokk ñëpp. ñi ko bokk ñëpp. képp koo xam ne sëriñ baa ngi ci sa xol. képp koo xam ne sëriñ baa ngi ci sa noo bokk liggéey bi. noo bokk liggéey bi. ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. kaddu yi kaddu yi cant rek la. kaddu yi kaddu yi cant rek la. noo ngi ciy jégalu. noo ngi ciy jégalu. kàddu cant rek la cant rek la. dañ koo mënta ñàkk a wax. te jëlee ko ci sunuy xol. te jëlee ko ci sunuy xol. indi ko ci sunuy làmmiñ. indi ko ci ci kilifa yu baax yi. jëmee ko ci kilifa yu baax yi. waa kër Cheikh Mahamadou Fadil yi. yi. jëf jure nga xam ne ñoo jëf jëf jure ji ñu jëf. ñi nga xam ne ñoo jëf jëf jure ji ñu jëf. fii. ñëw fii. nu ànd koog ñoom. nu ànd koog ñoom. bokk koog ñoom. loolu rek. loolu rek. dafa doy ak cant. dafa doy ak cant. sëkk sëkk. kon jërë ngeen jëf. ngi sant ñëpp. barakallah. waaw mi ngoog mbokki euh, Touba wala mbokki Diourbel FM euh, ñu ngi leen di euh, wax ne ñoo ngi fii ci kër Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké dégg ngeen kàddu yi nga xam ne ci la daane la kon nag dafa mel ne Serigne ñaan. Euh, ñu bokk nangu ñaan te wax amin waaw sëriñ bi ñaan na sëriñ bi ñaan na ñu ngi doon wax léegi rek euh, ci li nga xamante ni moom mooy fulkul masuun ñu ngi kàddu yi sëriñ ñu ko tàmbalee sant yàlla waaye sant d'abord sëriñ Mouhamadou Fadou Mbacke yëpp waaye tamit euh, xam ne liggéey bi solo su mu am ak tollooy mu am waaye tamit orienté doomu aadama yi jëm leen ci diglu xasida yi ngeen li ci nekk waaye tamit ñaanal bokk taalibe bi teew yëpp rawatina bokk yi nga xamante ni bitim réew te waxtu woo xamante ne heure jot na ñu bàyyi seen lépp activité yi guddi yëpp ngir fekkee li nga xam ne moom si guddi ñoom jot na leen ñaan waaye xam ngeen ne moom euh, sëriñ moom waaw waaw si donc nga kon euh, kaddu yi Serigne Bassirou Mbacke doon wax ci kaddu Serigne Abou Mbacke mi nga xam ne moom mooy euh, xalifa euh, Serigne Mouhamadou Fadel Mbacke ñoom ñu dikk teew fii ànd ak Serigne ci liggéey bi ngir tëjtali ndax xam ngeen ci biir jotaay bi Serigne bi junj na ko ñoom ñooy borom jotaay bi. moo tax sëriñ bi yëkkati kat yooyu jëlee ko ci sëriñ Mourou Mountakha Mbacké ñuy wax ak yéen nag mën ngeen a dal seen mbokk ndax sëriñ baa ngi ñaan te wax amiin mu am it jotaay bu am solo boo xamante ni lépp eh, ak seen sëriñ dañu ko sëriñ bi wax ak biir waaye tamit xam ne liggéey bi ni mu réyee waaye xam ne ni teew la ko ak bokk ci li ñu toll ak ci sëriñ bi tey kon eh, bu ñu koy wax ne sëriñ bi tegu ak ñaar ak moo doon sëriñ bi yëpp am na sëriñ Moussa Mbacké ak sëriñ Cheikh Mbacké nga xam ne ñu ngi ñëw Cheikh yëpp ñu ngi fa mën noo amee seen ñaan waaye tegu ak tamit maam Thierno Mbacke doomam bi taaw waaye tamit euh, ñu ràññee ci tay Serigne Abdourahmane Mbacke moom Serigne Mbacke Madina alquran nga xam ngeen ne Serigne Abdourahmane Mbacke euh, mi njaboot ci doon Serigne Mbacke Madina مكنتني أغنيتني صححتني أصلحتني هديتني برأتني أبقيتني كلمتني أوحيت لي عصمتني علمتني